sëriñ bi xaadalawoo laahu maxtaaralawoo bi mu musloo ci saytaane wax bismillahi rahmaani rahim julli ci yonte bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama sàkku ndimbal ci yàlla subhanahu wa taala delloo lépp ci moom lii la wax dani maa ngi sant yàlla subhanahu wa taala ci diine ji mu ma may di julli ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama ginnaaw loolu maa ngi bind ngir mbokk yi di ci mën a dimbandikoo ci jaamu yàlla subhanahu wa taala yàlla na sell lool ngir jëm yàlla subhanahu wa taala ci daraja yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama li njëkk war nag moo di xam yàlla subhanahu wa taala ak i yonanteem alayhimu salaatu wasalaam mag mu am xel nag laa wax te woote bi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa salama ak si ci moom li xam leen nekk mag juróomi màndarga la am na ñett ñoo yoo xam ni góor ak jigéen ñoo ko bokk am na ñaar yoo xam ni jigéen moo ko jagoo ñett yooyu moo di génn man niyu sax kawari ndigg ak am fukki at ak juróom ñett ci li gën a siiw ñaar ya moo di ëmb ak gis dereeti mbërëg mel na ni ëmb dugg na ci gis man niyu ndax jigéen du ëmb te génnewul man niyu diine lislaam ji yàlla gërëm subhanahu wa taala ñetti xaaj la gëm topp ndigal yi rafetal gëm moo di nga gëm yàlla subhanahu wa taala ak malaaka yi alayhimu salaam ak yonente yi alayhimu salaatu wasalaam ak téere yi ak bis pénc ak dogal bi bu neexee ak bu naqaree ni ngay gëmee yàlla subhanahu wa taala moo di da ngay dogu ni am na te tàmbalewul fenn yemul fenn nuruwul lenn wala kenn aajowowul jëm ci kenn wala lenn kenn la itam ci jëmmam ak i meloom ak i jëfam moom képp moo yeyoo ak jaamu lépp luy toq ci am xel sori na ko kenn du moom moo féete kaw lépp ak ñépp teewul jaam bu nekk moo la gën a jige sab xol teewe na lépp mi ngi ànd ak ñépp jigewul mbindeef yi jige gu mel ni gënu xam naka noonu jëmmam bokkut ak jëmm yi ngay gis amul jamono amul bërëb mën na lépp balaa dara am da koy soob xam na lépp day dund ci lu dul ak ruux day dégg ci lu dul ay nopp day gis ci lu dul ay bët day wax ci lu dul ay làmmiñ ak i xaraf wala kàddu amul ndigal yi ak bëggam la ak ngërëmam akuk soppam te moo leen digle amul mooy coobareem la waaye bëggu leen diglewu leen gërëmu leen ñaari yépp ci dogalam la ak i ateem sunu boroom subhanahu wa taala moo noon ñépp ak lépp te du lot du nelaw du gëmmentu moo bind mbindeef yi moo leen di delloo lu ko neex def te kenn di delloo ab ateem ab jaam mënuta daw ba du ko moy lu dul moo ko yërëm defal ko tawfeex ab jaam mënu koo jaamu lu dul moo ko bëgg dimbali ko lu dul yàlla subhanahu wa taala daa sosu te yàlla subhanahu wa taala moo ko amal ci kàttanam lépp luy yëngu wala muy dal wéetug yàlla subhanahu wa taala lay tegtale sayyiduna aliyu karamallahu wajhahu mas naa wax doomam ni ko yàlla subhanahu wa taala bu amoon ku ko ñaareel kon nga gis yonante yàlla yi ñooñee ak la mu bind wala la mu moom xam ba tey ay meloom ak i jëfam waaye yàlla subhanahu wa taala amul kenn ku koy ñaareel yonante yi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbi wa sallama nee na lépp loo mën a melal ci sam xel sunu boroom wuute naag loola ni ngay gëme malaaka yi alayhim salaam moo di da ngay dogu ni am nañu ay jaami yàlla lañu subhanahu wa taala yu tedd duñu ko moy lépp lu mu leen digal loola la ñuy def ba tey sunu boroom da leen di doxale digganteem ak mbindeef yi ñuy soppaxndiku ci ñoom waaye bëri nañu bëri goo xam ni yàlla subhanahu wa taala rekk moo leen xam amul benn bërëb bu nekk ci asamaan si lu dul am na malaaka mu fa taxaw sujjóot wala muy rukkoo seenu ñam mooy sellal yàlla subhanahu wa taala seenu naan mooy sàbbaal ko ni ngay gëme téere yi moo di da ngay dogu ni am nañu mooy waxe yàlla dëgg-dëgg ji nga xam ni amul xaraf amul kàddu waaye daa wàcc ci yonente yi ci ay baat yoo xam ni dañoo sosu nekk ci ay aliwa wala malaaka wax ko ab yonante mbooleem lu nekk ci téere yi dëgg la am na ci atte yoo xam ni dañu leen a folli am na yoo xam ni folli wuñu leen mën nañu téeméer ak ñeent sayduna shisha juróom fukki téere moo wàcc ci moom sayduna idrisha fanweeri téere moo wàcc ci moom sayduna adama fukki téere moo wàcc ci moom sayduna ibrahima fukki téere moo wàcc ci moom sayduna musa tawreet moo wàcc ci moom sayduna isa injil moo wàcc ci moom sayduna dawud sabboor moo wàcc ci moom sayduna muhammad furxaan moo wàcc ci moom sallallahu taala alayhi wa sallama wa alayhim wa ajmain ni ngay gëmee yonente yi alayhimu salaatu wa salaam moo di da ngay dogu ni am nañu yàlla subhanahu wa taala moo leen yónni ci mbindeef yi ngir ñu leen di jubal di leen xamal li ñu war a xam ci mbirum tey ak ëllëg dañuy am itam ay kiinaan yu leen di dëgëral bu wér di xamle seenu dëggal su ko defee bu ñu ñëwee dañuy leeral ñëpp li leen yàlla subhanahu wa taala digal war na nu leen di warmaal bañ leen a teqale itam sunu boroom itam da leen di musal ci lépp loo xam ni xayib la wala ak wàññiku kenn ci ñoom di def bàkkaar njëkk ñuy wax ak moom ak ginnaaw ba ni ngay gëmee bis penc ci moo di da ngay dogu ni am na mbooleem lu ñu wax ni dana fa am itam noonu mel ni dekki ak siraat gi nga xam ni aw yoon la wi nekk ci kaw jahannama jaam ñi dañu koy jéggi ci kem seeni jëf am na ñuy mel ni ngelaw am na ñuy mel ni ak melax am na ñuy mel ni fasow naaru góor am na ñuy mel ni kuy daw am na ñoo xam ni danañu mucc mucc waaye danañu am ay xayib ci seeni yaram naka noonu peese jëf yi fa ñu koy defee mooy màndaxe ma day amul làmmiñ moom peese ba ak ñaari wet benn bi ci la yiw yi di tege ba ca des ca la ñaaw teef ya di tege képp ku ay jëfam yu baax gën a diis texe na képp ku ay ñaaw teefam gën a diis perte na naka noonu yonente bi sallallahu taala alayhi wa sallama am na fa déeg bu ñuy wax kawsar aw xeetam ñoo cay naan moo gën a weex soow moo dàqalem ku ca naan dootu mar naanu kaaya tol na ni biddiwi asamaan yi naka noonu àjjana ak sawara sunu boroom bind na leen ba noppi fi mu ne ngir teral ay xaritam ak mbugal ay noonam ni ngay gëme dogal bi moo di da ngay dogu ni lépp lu yàlla subhanahu wa taala dogal dara mënu koo tee am lu mu dugalul kenn mënu koo tax a am sunu boroom bind na aw yiw aku ay njëkk muy bind mindeef yi mboole mindeef yi ci dogalam lañu nekk aku nammeelam nit ñi ak ginne yi ak seytaan yi bu ñu maase woon bëgg a yëngal wenn fepp suuf te yàlla subhanahu wa taala nëmu ko duñu ko man naka noonu safaan ba lislaam moo di juróom ñaari cër yi di def lañu leen di digal di bàyyi lañu leen di tere am na juróomi keno ba ca njëkk mooy wax amul benn buur bu dul yàlla subhanahu wa taala muhammadun itam moo ko yónni sallallahu taala alayhi wa sahbihi wa sallama ànd ak fas ko danga koy wax fas ko ak julli juróom ni mu ware ak joxe asaka ak woor ramadan ak xaj màkka boo ko manee xaaji atte sariha juróom la farata te mooy lu mënta ñàkk ci yow mel ni gëm yàlla subhanahu wa taala ak i yonanteem alayhimu salaatu wasalaam ak keneen lislaam yépp ñaareel bi moo di lu ñu sopp te mooy lu ñu la digal te waru la mel ni ñaari rakkaay fajar ñetteel bi moo di lu ñu sit te mooy lu ñu la tere ci lu dul ñu koy waral ci yow nga bàyyi ko mooy lu ñu la tere ci lu dul ñu lay ñu koy waral ci yow nga bàyyi ko mel ni jàng alxuraan ci ab rukkoo ñeenteel ba mooy lu xaraam te moo di lu ñu la tere waral ci yow nga bàyyi ko mel ni naan sàngara ak njaalo juróomeel ba mooy lu dagan te moo di loo xam ni def ga ak bàyyi ga ñooyam ci yow am na ñaari farata farata boo xam ni ku nekk moo koy defal boppam mel ni julli juróom ak boo xam ni bu ko ñenn defee mu wàcc ñëpp mel ni xettali kuy lap wala waajal ku faatu ak jihaat ak yu niroog ñoom saa suñu waxee lu ñu sopp sunna da ciy duggaale ak mbooleem jëfi ngàtt ngay sunna mooy loo xam ni yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sabi wa sallama da koo saxaloon daa ko def ci biir mbooloo mi ñu koy gis lu ñu sopp mooy loo xam ni saxalu ko woon benn yoon la ko def wala ñaar ngàtt nga mooy loo xam ni nit ki moo koy def ci coobareem ci coobarey boppam ci xeeti wirdi yi mu dëppoog jëfi yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama loolu mi ngi ci xatu téeméer ak juróom ñett fukk ak ñaar di cent quatre-vingt-deux ba tey ñu ngi ci diiwaanu jasaawu shakoor sëriñ bi xaada lahu law maxtaara lahu bi mu jull bi mu jullee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama ba noppi ñaan na téere bi doon luy yar di yéegal képp ku ko nangu di ko yóbbu àjjana itam door a wax lii tudd yàlla subhanahu wa taala mi ngi mel ni ab dund ci aw yaram ndegem kenn mënuta def dara te dundul naka noonu kenn mënuta dugg ci péeyu yàlla subhanahu wa taala te bëriwul lu muy sikkar yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallama nee na mbooloo mu daje di sikkar malaaka yi dañu leen di wër sunu boroom muur leen yërmande wàcc ak dal ci ñoom wàcc ak dal ci ñoom di leen tudd fa moom ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi wa alihi wa sahbihi wax na ci hadis ni sunu boroom day wax ni man maa ngi fi samab jaam njorte maa ngi ànd ak moom li feeg mi ngi may tudd bu ma tuddee ci am xelam ak boppam ma di ko tudd ci sama bopp bu ma tuddee ci mbooloo ma tudd ko ci mbooloo mu gën mooma yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na sunu boroom am na malaaka yuy wër di taxaw ci jataay yi ñuy tudde yàlla subhanahu wa taala kon dee leen xëy ak a gont ci tudd yàlla subhanahu wa taala man nag maa wax ni jàng alxuraan moo gën ci sikar yi képp ku koy taxoo ànd ak sàmmonte da nga daal di gis njariñ li loolu ma wax da ngeen ci dégg ni alxuraan ak mbooleem jëf yu baax yi bu àndeeg lekk lu xaraam ak lu lënt du jariñ ci adduna ak alaxira mën naa waral sax ak naafiq te sunu boroom nee na naafiq yi sawara lañu jëm innal munafiqina fi darakil asfali min annaar yal nañu yàlla subhanahu wa taala musal musal leen ci lépp loo xam ni day tax nu sori ko ak lépp luy waral nu tàbbi sawara ak ak lépp luy waral ñu tàbbi sawara tee nga ni ay doj ak i nit ñoo ñoo di mattam malaaka yu tal nekk fa duñu mooy lenn lu leen yàlla subhanahu wa taala digal yal nañu yàlla boole ci ñooñ àjjana joojee mu dig ñi ko ragal jaamu yi bi ci gën mooy bu jugee ci yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na jëf ju néew ci samaw yoon moo gën jëf ju bëri ci ludul samaw yoon ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na waxtaan wi gën mooy téerab yàlla bi subhanahu wa taala njub gi gën mooy sama njub li gën a bon ci mbir yi mooy yi ñu sos lépp lu ñu sos bidaa la bidaa bu nekk ak réer la am na ñu ciy dolli réer gu nekk sawara la jëm yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na képp kuy dem ci boroomi bidaa mi ngi mel ni ku koy dimbale ci mabbu lislaam ba tey yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na maa ngi leen di dénk sama yoon wii ak yoonu ñi may wuutu te jub na ngeen ko jàpp bu dër matt ci seeni bañu dégéej na ngeen moytu yi ñuy sos lépp lu ñu sos bi daala ba tey yonante bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na lislaam mi ngi tàmbuli ci ak tumuranke ci ak tumuranke lay dellu waaye ñi tumuranke ci sama xeet wi texe nañ lépp lu ngeen di sonn la ca gën moo di xam-xam bu am njariñ yonente bi sallallahu taala alayhi bi alihi wa sahbihi wa sallama nee na jàng benn buntu ci xam-xam moo ma gënal junni rakkaa naafila subhaana rabbika rabbil izzati ammaa yasifuun wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin loolu ba tey mi ngi ci xatu cent quatre-vingt-cinq ci diiwaanu jasaaw sakkoor